Fall ak euh, euh, Thierno Alassane Sall. non man mosuma neexal kenn. mas mas la mais yeewi ñoom seen intérêt moo nekk ci ànd ak Ousmane Sonko. bari na tey ñu nekk député bu ñu ànd woon ak Ousmane Sonko duñ nekk député. Hmm. loolu mooy dëgg. loolu ku ko ñemewut a wax yaa sa affaire la parce que xëy na am nga loo ragal mais tey bari na ku nekk maire. Hmm. bu dul loolu Ousmane Sonko doo ko nekk. parce que moom moo incarné espoir. yaa ngi dégg moo jaay nit ñi discours bu tax nit ñi buy wax ñu déglu ko jox ko importance. am yaakaar loolu mooy réalité bu am Sénégal fii moo tax su ma déggee ñu naan gis nga dafa am loo xam wax ko jotagul rek yaa ngi dégg waaye ñun xam nañ ni bis bu wax jotee te yàlla may ñu kàttan rek dinañ wax parce que ñun nekkuñu ci affaire leen ñu ànd baara yogoo pour falu ñun loolu ñoo jug ñun loolu taxuñoo dugg ci politique xamuñu lu tax dugg ci politique fen jóg ci réew mi ñu teg dëgg ci kanam ñu jël intérêt Sénégal jiital ko ci lépp képp ku ñu am yaakaar ni boo ñëwee di nga def loolu ñu taxaw sa wet taxaw sa wet bokkuñu sa parti xola Sénégal moo tax ñu ànd buñ gisee ngay doxal pour Sénégal ñu tàccu la buñ la gisee nga nekk ci sa bopp dinañ taxaw xeex ak yow dénoncé la il faut wax ji mu leer d'accord ku ne ñu xam lan mooy sa discours ak ku ne lan mooy sa combat koo xam ne da ngaa bëgg ku lay ku lay ku lay taggal say maam nga dem wuti ko ñun duñ taggal maam kenn. d'accord à de ça lan moo mën a nekk euh, l'avenir de Yewwi Askan Wi particulièrement. avenir amul benn avenir sax boobu bëggee dégg dëkk ah amul avenir Yewwi Askan jeex na parce que fi ne dañuy ànd nii rek assemblée nationale pour pour jéem a contrecarrer li nga xam ne ni mag Sall bëgg na ko def mooy troisième candidature mais budul loolu amul benn avenir fi ne ku ne da ngay wutali sa bopp. yeewu askan xam nañ loolu sax pacte bi ñu signé woon Bignona mooy pacte bi bi ci jiitu woon mooy nan la ñuy àndee ci élection locale yi ànd nañ ci ba ku ne am nga loo am ñaareel ba mooy nan lañuy àndee ci assemblée nationale tey ñu ngi ci ànd xëy na bu fekkee ni li des mooy nan la ñuy fexe ba amnistie Karim Wade mu bokk ak Khalifa Sall te loolu jàpp naa ni dina jafe sax ñoom pour ñu def ko te Macky Sall ci boppam en tant que président de la République àndu ci yaa ngi dégg kon sur le plan politique Yewwi amul benn avenir fi may waxee dafa laa dégg-dégg amul benn avenir ci sunu kanam tey li nekk sunu kanam bu fekkee ni ñoom dañoo bëgg a nekk candidat hmm. wàllu dañoo bëgg a nekk candidat ñu ngi leen di souhaiter seen candidat boobu yàlla na ko yàlla jàppandal parce que man loolu laa gëm damaa gëm démocratie na ñëpp bokk Sénégalais yi tànn ku leen neex hmm. man tey su ma am sañoon Karim Wade bokk yaa ngi dégg hmm. Khalifa sàll bokk Ousmane Sonko bokk te loolu boo seetloo Ousmane Sonko li lay wan ni moom ku gor gor la bi mu génnee brigade de recherche recherche boo seetloo discours bi mu njëkk a def koroog wax na ko dani maa ngi ñun dinañ ànd def benn bloc ba Macky Sall dootul mën a di tànn ay candidat ku ko neex mu bokk kon naqareem du bokk dinaañ fexe ba Karim Wade dellu ci réew mi dinañ fexe ba Khalifa Sall bokk loolu la waxoon te ba léegi ci démarche boobu la nekk yaa ngi dégg ci démarche boobu la nekk nañ fexe ñëpp bokk rek sénégalais yi tànn. d'accord waaw ah. mais ku ci bëgg a yaakaar ni man ngaa ndax sénégalais yi maa ngi dégg sax ay nit ay nit ñu foo ñu xam tekkiwuñ dara naan Ablaye Wade moo tax moo tax yee yee def percé bi mu def mais nañu respecté nit ñi ñu ragal yàlla Ablaye Wade Ablaye Wade kan moo ko fi déggoon Ablaye Wade dégguñu ko fi gisuñu ko fi man awma dara lu ma koy compte ku ko respecté la mm-hmm. ku am mérite la ci Sénégal koo xam ne dañ koo war a. delloo njukkal. Mhm. waaye nag ndam lii bu fekkee am na kenn ku ci joué rôle. Hmm. Ah, ku ñuy wax Ousmane Sonko la loolu mooy dëgg. lii may wax ni xool neexul Sonko de mais man je m'en fous parce que man Sonko moomu ma lii may wax xam nga Sonko moom boo xoolee li muy waxee lu ñëw da leen koy delloowaat yaa ngi dégg mais ñun ñi nga xam ñun dañuy analyser te ñun kenn moomuñu dinañ am courage wax loolu lii ndam lii bu fekkee am na kenn ku ci am ndam laa la wax. te te tey kii ku naa fekkul nangu ko mooy Ousmane Sonko te Macky Sall xam na loolu boo gisee Macky Sall génnewul benn liste liste xaak Sonko rek la génn parce que xam na ni moom ki ko war a wuutu bu fekkee ni yàlla dogal na ko kenn la muy Ousmane Sonko. Hmm. loolu mooy dëgg. kon nañ bàyyi naa fekk ak wax lu dul dëgg. Sénégal nag malheureusement su réew mi loolu moo ko yàq nit ñi ragaluñu yàlla li ñuy wax seetuñu ci yàlla ñun élection yi fi la ñu fekk. Ablaye Wade déclaration boobu même bu ko deful woon amul benn effet bu muy def donte nag ñi ànd ñëpp encore une fois dama gëm ni am nañ mérite man loolu laa gëm. waaye mérite li ngay wax mbaa mbaa mbaa du indi xajam xajam. ci xajam xajam yow diggante yeewe ak wàllu. waaw ah, loolu seen affaire ànd ci ci ci man xamoo nekkuma ci affaire yeewe ki wàllu. da nga nax dina indi xajam xajam ci Sénégal te du indi benn xajam xajam dëgg guy indi xajam xajam amul. mais faw ñu ànd foofu. pour ci mbiru mbiru sénégalais ànd bi force la ànd bi sénégalais yi ñoo leen ko imposé bu ñu àndul sénégalais yi sanctionné leen képp ku fi dem ànd ak Macky Sall sénégalais yi sanctionné la. waa wàllu ñoo la ko gën a xam moo tax wax nañ ko. yeewi ñoo la ko gën a xam moo tax wax nañ ko. ñu nax nit ñi. Imam Dramé nag kenn moomu ko moom hmm. waxul pour yeewee wàllu man ba may wax xaw ma yeewi xaw ma wàllu. d'accord te maa xool maa ngi je défie quiconque man man ba may wax ci Sénégal damaa xam ay yeewee ki wàllu ñun bi ñu bëgg ñëw ñun kenn duñu tënk ñun li ñu gëm mooy tey jii benn espoir ci politique moo fi am muy Ousmane Sonko ku gëm leneen nga défendre ko wala nga wax. d' accord d' accord ñu ngi ñu ngi ñu ngi egg ci fin wu émission bi imam mais dama bëgg balaa ñuy terminer ñu egg ñu wax ci ñaari point particulièrement euh, sur le plan social. waaw ah. fële ca Dantec. xëy yëg nga dafa xew. mooy délocalisation service ya nga xam ne ñoo fa nekkoon ngir dañu war a tabaxaat euh, hôpital bi daf na plus de téeméeri at. Euh, bâtiment yi nekk ci état boo xam ne état bu yàqu la euh, délocalisation boobu indi coow yu bëri indi détresse yi askan wi ci patients yi particulièrement lenn ci personnel médical bi aussi personnel de santé bi ñoom aussi xaw ko ngañ ban jàngat nga ci am ci loolu yëpp. waaw man damaa gëm ni hôpital bu def téeméeri at ak ak ak ak téeméeri at hôpital bu ko def. war nañ koo ak lu teg sax ak lu teg. Mhm. loolu moom ñëpp ci ànd. Mhm. defaraat hôpital. ñëpp ci ànd amul benn sénégalais boo xam ni sénégalais nga te àndoo ci loolu. Mm-hmm. man lenn rek moo ma ci xaw a jaay gi ma ciy dégg. maa suuf trois hectares. waaw mm-hmm. trois hectares yooyu ma dégg ñu ni dañ koy jaay yooyu damaa gëm ni bu fekkee ni nguur gi jël na ci décision ba pare war na cee mën a dellu ginnaaw bu dee jëlagu ci décision bu mu ko jël parce que Sénégal mënuñu jël sunu plat sunu lieu stratégique yëpp yaa ngi dégg ñu koy jaay ay étranger man jàpp naa ne hôpital dafa soxla espace vert Dakar ci boppam dafa soxla espace tey yaa ngi dégg jàpp naa ni loolu lu mën nekk la bu dee trente milliards il paraît que la ñu wax ni moom lañ soxla mais trente milliards xanaa trente milliards sénégalais bu ñu cotisé ku ne cinq cent cinq cent sax ñu am ko. ah est-ce que am nañ ko dëkk bi dafa métti de. non état amul trente milliards ta ngay defar ab stade soixante soixante milliards. Hmm. stade ak hôpital ban moo gën a nekk priorité. hôpital bi sax 60 milliards lañ ko war a defaree. waaw waaw. Mhm. defar nga ab stade yàggul dara barki dem. 150 milliards 150 milliards. yaa ngi defar ab terre. Mhm. mu coûté la ay milliards yu bari waxuma la ak hôpital bu mel la Dantec nga xam ni la Dantec patrimoine la. Mhm. yaa ngi dégg réew dafa am ay patrimoine yoo xam ne kenn du ko caaxaane tey boo demee réew yu mag yi réew mu mel ni ay Égypte ba ci seen seen pharaon yi yiñ fa bàyyi woon yooyu dañ ko garder nag yooyu ay patrimoine la. daal li ma te Dantec ci patrimoine yi la bokk yaa ngi dégg man à part gestion bi ni muy dox man loolu du ma ci sori parce que maîtriser wu ko. Mhm. li ma d'accordul daal nga xam ne par principe la mooy ñuy jaay suuf ci digg Ndakaaru te am leneen lu ñu fa war a def. d'accord d'accord beneen kii bi. waaw ah, loolu moom mhm. par principe jàpp naa ni bu dee nii defaguñ ko état bi na am courage teg ko ci suuf. d'accord parce que suñ suuf si ñu desee ku si néew waruñoo jël di ko jaay ay étranger yaa ngi dégg parce que nit ki amoo. amoo lu dul lu dul espace bi nga am yaa ngi dégg luye sax d'accord mais di jaay di jaay suuf boo demee tey le monde islamique suuf moo fa gën a cher suuf mooy li gën a cher ci ci ci ci ci ci am réew mais bu dee nii xet gi lay na rek ñu jaay ko loolu baaxul loolu nag ñu ngi ciy woo nguur gi ñu dellu si ci ñu toog waxtaan parce que nit man ngaa jël décision dem ba ci biir xam ne décision bi kat sama peuple d'accord uñ ci ma dellu ci ginnaaw loolu mooy grandeur mhm. waaw kon ñu ngi leen ciy woo ñu xam ni la Dantec patrimoine national la yaa ngi dégg et puis tamit ñu jox confiance man déglu naa démb directeur bi Dantec man duma ma dof booy wax dama lay déglu